di wane ne Sénégalais yi maa ngi taxawal benn fondation boo xam ne yaakaar naa ci kanam du yàggati. Mhm. ngir lépp loo xam ne nii tey jëm nañ ca ña nekk ci place boobee. Mhm. ñu leen di jàppale di leen nemmiku di xool ci la nekk ndax nag ay nit a nga fa ñetti nit a fa nekk. Mhm. nit koo xam ne nii. lan koy jiiñ defu ko fa mu dugg fa ñu dugal ko fa ñu mm-hmm. not ko dugal ko fa mm-hmm. nit nga fa koo xam ne nii lan koy jiiñ moo ko def waaye bu ëllëgee duutu ko defaat mm-hmm. ñu dugal ko fa nit nga fa koo xam ne nii place boobu xëy na da koo mérito bu génnaatee dana def lu ko fa dugal waaye nag nañ leen bàyyi xel parce que foofu fu mat a bàyyi xel la mhm. lu leen mën a jàppale ñu jàppale leen ko occasion la boo xam ne daa ko lancé wan ne loolu it am na liggéey bu mag boo xam ne nii suñu borom sant na ma ma war ko caay d'accord les dernières questions yaa ngi ci face to face mhm. fi mu ne nii comme euh, euh, tàggalikoo nga ak euh, waa parti démocratique sénégalais taxaw sa parti wala wala da ngay piis Macky Sall waaw déet piisuma Macky Sall mhm. Macky Sall damaa ànd ak moom ca jamono ya nga xamee ne mi ngi biir PDS waa PDS di ko xeex ma ànd di ko soutenir di ko soutenir ba mu génn PDS mënumaa génn PDS ma des fa mm. yàlla it mu tuddoon tey jafe-jafe yi yëpp ma war koo jànkonte ci biir PDS mm. ba tey pouvoir bi daanu ñu wàññi ko def injustice jëlaat sama rakk yu ma bokk ndey ak bàyyi defaat ko ci liste mm-hmm. ca man ba may nekk ci parti bi yaakaar naa ne gone yu bari nekk ci parti bi lu mel noonu it doon loo xam ne mënu maa jaxase ak sama famille parce que li tax mënu maa jaxase sama famille neexu na waaye nag injustice da cee am mhm. ndax it nit ki nga xam ne tey mi ngi nekk tey ci biir mbir di ci liggéey nga wàññiku nit dikk ci région ba nga nekk wala département ba nga nekk jëlaat fa yeneen nit samp leen ci sa kaw du la neex <clears throat> loolu mën naa yaakaar ne Madické Niang moo ko def Touba. mais doonul lu ma neex mais nag comme ci sama biir rakk la ma def la la la nekk dana ma neex. ndax biñ toll ci biir campagne yi ma war a démissionner pour ànd ak waa euh, euh, Macky Sall muy ci législatif yi dafa ñëw sama kër. na ma dan dugal ci ay liste ca war nañ ma cee dugal ci liste bi ci buñ ma dugalee ci liste bi heure boo xamee ne yàlla dogal na démissionné nga waxtu wi mën nañ maa génn waat ci liste bi mën na ko duutoo dégg sama kàddu parce que samay rakk lan mm-hmm. lépp lu ma gën a bëgg rek ma bàyyi leen moo tax ba ma Pape Diop Pape Diop nee naa la sama problème bi moom moo moo ci jëlal avocat maître El Hadji Faye ko mm. jàppale ma ci ci am na jamono yoo xam ne maa Karim Wade àndoon di ko sànni xeer waaw ah? yaakaar naa <clears throat> mais jàppale ma la foofu na may pour dugal ma ci ay listam ma ànd ak moom liggéey mm-hmm. kon tey yaakaar naa ne ma Macky Sall damaa àndoon ak moom am lu ma sosoon mm-hmm. mu am fu dem bàyyi ko mu sos wa yam fa yaakaar naa ne dama koy ñu koy waxatee jokkale sosiwaat te it nee naa la même bu doon toon moom dama fa am jigéen muy ko mu mel ne Aminata Tall nga xam ne ay kóllëre nan pan ay at mm-hmm. ma tuddee ko doom nga xam ne seq nan ay jàmm mm-hmm. ay kóllëre yoo xam ne ay waajurum xam ne ko fa même xam ne ko day ñëw sama kër ñuy jaxasoo yaakaar naa même bu doon doon Macky Sall sax war na maa mën a dem ànd jéeg. waaw kon kon fi ne euh, su ma ko su ma su déggee bu baax. Mhm. mooy fi mu ne nii euh, yaa ngi APR. dem naa APR àndal ñoom sans condition sans condition nag lu ñu jàppale <laughs> leen. waaw sans condition. sëñ bi yow yaa dàq suba tabaski. bu wér bu wér sans condition. ba pare nag toog di xool gaa yi ak ndungu seen ba xam fu ne xam nga jaaxal ah. yow dem dem ci ab ci ci Macky Sall da ngaa woo Macky Sall dugg fa wala da toog ni si télé nga taxaw rek ne dugg naa si Macky Sall na naka nga ko defee naa la na ma ak Macky loo ne jëru sax ma koy woo ah déedéet déglu ma des na damaa seq moom loo xam ne am fu ma doon liggéey moom am fu mu tàmbale am fu mu yemoon waaw ñaareel bi beneen bi ci des it mooy mbir mi bu fekkee ne tey li ma daj biir parti démocratique mm. ca dëgg-dëgg ci su teewul suñu borom mi ngi may xeewaleel waaye même bu ma nekkee parti de euh, APR ca di ko jàppale doon lu ma gëm. Hmm. du lu may aj ci lu ma Macky Sall di defal wala lu ma defalul. Hmm. pas-pas rek laa ci am ak jàppale. avant muy sos APR àndoon di liggéey génn na euh, parti démocratique des naa biir parti démocratique tey jii demaan na ba gagné réew mi mais waxtu wa muy gagné réew mi man yaakaar naa deuxième tour ku ne xam na ne am na ay jéego yu bari yu ma def. Hmm. ba yaakaar naa ne keroog sax am na ñu parce que la tax ma jotee ñoom muy wan na leen ne yéen ñiy war góor gi gépp da ngeen di nax góor gi ci da ngeen di daanu mm. waaye nag am na loo xam ne man mënuma ko mooy sama waajur ngi ci biir parti bi mënu moo a may temps bi jeex na sëñ lo lo bëgg a xam mooy mm-hmm. euh, euh, xam nga euh, ne bokk naa APR mm-hmm. dugg naa maa ngi ci APR loolu mm-hmm. dafa dafa nekk lu xóot warul nekk rek loo xam ne c'est dafa dafa ça va être formel quoi je veux dire dafa war a nekk ay formalité mhm. yoo xam ne dem nga gisante nga ak ñoom Macky Sall yow est-ce que am na ay kàngam APR yoo xam ne gisante mhm. nga ak ñoom waaw moo tax ma ne la gisante goo kenn si ñoom déedéet Macky Sall recevoir maanaam dégg déggoo li ma wax dafa am mhm. loo xam ne li nga wax léegi dafa doon dafa doon mbir moo xam ne mbir moo xam ne ni dafa doon mbir mu mooy liggéey la fii ma toll nag la ma ci war a liggéey lépp liggéey naa ko kon gisante ak ah maa ngi maa ngi bari maa ngi wax ak ñu bari non du ma du ma cité ma toll maa ngi wax ñu bari ci ñoom maa ngi gisante ak ñu bari mais est-ce ko bu yàgg <laughs> yàgg yàgg di wax parce que deuxième tour yi moom ci laa pare ñëpp xam na ne deuxième tour yi <laughs> demuma ni bureau mandataire la woon ci parti démocrate dem ci numéro wat demuma sax watale ji parti démocrate waaw mais mais sëñ bi sama demuñu misaan mi may rey gisoo mi ngi rajo caméra mais mhm. euh, euh, euh, misaan nga saraxma mhm. benn benn benn trente rek mhm. xam nga Macky Sall ba mu ba muy Macky Sall ak Ablaye Wade yàlla ak yàlla la. bu wér waaw bokkuñu rien du tout. xam naa ko dama leen xam ñoom ñaar ñëpp. waaw léegi dama ne li tax ma ne ñoom ñaar différent nañu mooy. Euh, euh, xam nga waat moom fu ñëwee danoo mhm. woo nit ñi ay transhumant ak ñoom seen mhm. mag yi gis nga ko mhm. du xeet bi nga xam ne da ngay taxaw du da nga koy chantage mu woo maanaam du da ngay di sànni xeer pour mu woo du la woo ñi nga xam ne ñëpp ñu ñu tilimoon ñëpp mhm. da bëgg a daw làqatu si ñoom mhm. faalewu leen mhm. bëri na fi ñoo xam ne nii dañu taxaw si presse bi taxaw ne euh, bokk naa APR te suñu toog ak moom xalaatu leen woo du dëgg léegi nag man laaj bi may laaj mooy li nga xam ne moom lañ la tuumaal est-ce que foog na foog nga ne ku mel ne Macky Sall nga xam ne nit Sénégal yëpp jàppee ne nit ku yaru la ku yiiw la ku mel noonu foog nga ne yow Macky Sall ak euh, passé bi nga fi am nga foog ne Macky Sall dina la yaatal xam mooy wax ji Macky xam ne kan mooy sëñ Modou Bara man sëñ Modou Bara Dolly xam naa kan mooy Macky mm-hmm. ni ma xamee comme euh, kuy Ablaye Wade xam naa kan mooy Macky am na diir bu ñu ànd am na ay conseils yu ma ko daan jox bi mu nekkee ci biir parti démocratique am na ay teraanga yu daan seq ba ci soxnaam am na ay mbubb yu ma daan jox ay teraanga yu daan seq kon xam naa kan mooy yi xam naa it lan moo dox sama diggante ak yi doonut lu may làmbatu doonut lu may wër-wëral xam naa it ne nit ku set la démb tey soog a ñëw xam naa it ne ba muy wàññi koo moom ci jëmi boppam ñu koy tuumaal ci mooy woo Karim ay nit def ay lobbying pour dàq ko ci parti démocratique lépp da maa ngi moom maa ngi ci wetam di ko jàppale xam naa la ci nekk keroog ba mu génnee premier euh, ministre jéggi di dugg këram maa ngi moom ñoo fa duggandoo kon xam naa kan mooy Macky sëñ Modou Bara Dolly Mbacké émission bi jeex na face to face donc ñu bàyyi la nga tàggatoo ak yi jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, di la ñaanal yàlla it sa émission bi mm. euh, ni nga wax léegi nii mooy changé nga ci yu bari bari dox leen lu ma lay wax léegi <laughs> euh, mag yi am na bu baax <laughs> ba tax na it euh, ñu ngi lay ñaanal émission bi gën a jëm kanam di ñaanal it borom télé bi liggéeyam it gën a jëm kanam ndax am na wax bu ma dégg mu wax bu am solo hmm. ñun dañ fee ñëw ngir liggéey réew mi waaye ñëwuñu fi ngir wut si lu am solo la hmm. baat boobu dafa doon lu am solo xam nga bu ko ñi ànd ak Macky xamee dund ko def ko wan réew mi moo leen ñor bañ a def ñi nga xam ne ñi weesu noonu lañ defoon hmm. di jël xaalis réew mi ko jalgate ku leen neexul ñu xeex ku leen neexul ñu yóbbu leen ndungu siin ba tey ñu desee ndungu siin mhm. ndungu siin waxuma ca foofa <laughs> kon tey Euh, li am solo bu fekkee liggéey réew mi moo leen ñor comme ni ko seen kilifa gi waxee mm-hmm. yaakaar naa ni tey jafe-jafe yu bari mën naa bañ am ñun sëriñ si nga xam ne dañoo gëm liggéey nekk ay opérateur économique ñi nekk ci ay tool ñu jàppale leen ñoom it ñu liggéey yaakaar naa ne réew mi dana doon foo xam ne ëllëg si biir dana doon loo xam ne lu ëpp dana doon njariñ loo xam ne ñun ñëpp ñoo koy gën a njëriñ mm-hmm. leneen li ma des daal nga xam ne dama koy dénk mooy ànd gii nga xam ne ñoom ñëpp dañ koo àndee ba jëlee fi Ablaye Wade nekk benn bu ci dara mën a dox ba yàq ko na leen nan jël seen intérêt jiital ko muy benn muy Sénégal bu ñu jëlee Sénégal jiital ko rek ci bañ jël ay partie wala jël leneen rek ànd bi dana yàgg lool mm. te dana doon loo xam ne dana jariñ Sénégal gépp jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi <laughs> taala nam sëñ Modou Bara Dolly Mbacké moo doon suñu gan ci ko jaajëfal euh, ci euh, ni mu ñu accueillir fii ci këram ñu waxtaan ak moom yaakaar ne waxtaan bi euh, daal dina leen amal njëriñ ñuy remercier nag yéen ñi nga xam ne yéen ñuy teewlu dimanche bi jot midi ci seen télévision fi Médias di ñu seetaan di remercier également euh, sunu partenaires yi euh, gis ngeen bopp bi euh, Fatoulaye Kena la borom complexe Sofia may remercier xale mi nekk foofu yëpp ñoom ñëpp ku lim da ngay juum waaye dinañ ma donc may may may may ma leen gërëm daal waa complexe Sofia fii ci ma Mamelles Aviation di remercier également ci yére bi ki nga xam ne mooy maam Jandi ji euh, maam couture euh, maam fashion euh, ci cap Liberté 5 may remercier également comme d'habitude sama complice yi ci technique bi Mbisaan Ndoy ak Malick Ka ak Ibrahima Yàgg ñoo yore lépp loo xam ne mooy jëm ci xarala yi mbokk yi Euh, ma leen di jaajëfal lu bari di leen euh, jox euh, daje dimanche prochain beneen face to face ak beneen gan merci